Assalamualaikum warahmatullah. rahmatullah ñu di nuyu di ñëwaat ak yéen beneen yoon ci benen histoire comme niñ ko bokkee xam alayhi salatu wassalam histoire ni ci mom la Mo ni daf ko netali Bi nek ben ci yooyu mi wax ci bénéfice bi nga xamee ni nek na ci jaam bi commerce bu muy seq ak boromam Manam nit ki limi am mu mu bari fa yalla la Agit naka la ci mën amee bénéfice jamono ji nga xamee ni mi ngi ci séddaat yàlla ci jaamam yi bala ñuy commencé dañuy profité di remercier gannaaw bañ ko sant yàlla ba pare di remercier lu ëpp dix mille abonnés yi nga xamee ni ñi ngi fii ak ñun jox ñu seen confiance di xaar ci ñun chaque jour lu rafet di ñaan yàlla yàlla dëggal yaakaar googu histoire bi di nettali benn waa yoo xam ni dafa nekkoon ci benn àll bu désertique moom dong moom ci ndum nekku fa kenn nekku fa dara àll boo xam ni mënoo fa sax gis benn màndarga bu la mën a war ni fii ab lu fi dëkk doo fa dégg lu dul ngelaw doo fa gis lu dul suuf ak montagne ci biir tekk tekkaaral goog nga xam ni mi ngi dajal àll bi yépp waa ji amul lu mooy brusquement dégg benn baat bi wax boole na tiit ak jaaxle mi ngay wër pour wërliku baat boobu mu dégg muy wax fan la parce que dafa wax ci ay kàdd yu leer nañ xool na xool voix boobu dikkeewu ko fudul ci kaw ci niir yi ci asamaan si lan la voix bi wax arroseel toolu diw naka la voix bi wax ba daaneel ñiir yi jël yoonam commencé dem mel ni koo xam ne dañ ko yebal ci ab barab mu fa dem ñu sant ko mission mu war ko def waa ji ci biir tiitaangeem googu ak jaaxleem googu mi ngi ci boole bëgg dañ kumpa li xew lan la bëgg na xam ba xam lim dégg lu réel la wala boog déedéet dafay imaginer kese bëgg na suivre action boobu mu commencé ba xam fan lay terminer jee fan lay jeexee lim def mooy topp na niir yi niir di dem mu topp ci niir yi ànd ak moom di dem ñeel bi dem ba teer ci benn àll boo xam ni dafa am ay xeer yu ñuul yu bari asamaan si xiin xiinaat mu commencé di taw li ko jaaxal dolli jaaxleem mooy taw bi bu wàccee benn yoon lay jël moom it def ni ko niir bi defee mel ni koo xam ne dañ ko yebal ci barab mu war fa dem ñu sant ko mission mu war ko def mu continuer topp ndox bi comme ni nga xamee nii noonu la doon toppee niir bi pour xam ndox mi fan lay keriyee ak lii doon liggéeyam mu dox topp ndox mi ba yàgg gis loo xam ni xelam mësu ko xalaat xel sax foogu ko ngay wax gis na ni ndox mi dafay viré ci benn tool boo xam ni dafay tool bu naat waa ji taxaw ak jaaxleem li ko jaaxal mooy tool bu mel nii naka la war a mën a saxee ci barab bu mel nii tool boobu nga xam ni fa la mi jëm mi ngi gis ci buntu tool bi benn waa joo xam ni mi ngi yor peelam di jàllale ndox mi mu commencé am jaaxle di xalaat ci mbiru waa kan la war a mën a doon ba yàlla di ko tàggatal niir yi di sant waa asamaan pour nañ ko arrosel toolam bi moom mi nga xamee ni moo duggee kàddu yi ci désert bi ci àll ñëw ba ci waa ji nuyu ko laaj ko noo tudd borom tool bi na ko man diw laa tudd passage si nag waa ji daal nay am lu ko leer nañ xam na ne lim dégg du li muy imaginer waaye nag lu leer la lu réel la parce que tur bu mu dégg mooy même tur bi nga xamee ni moom la ko waa ji jox mu xam ni lim dégg malaaka la boo xam ni mooy sant niir yi pour ñu ñëw arroseel waa ji toolam mi ngi taxaw ak jaaxleem mi ngi xalaat ci mbiru waa ji kenn la war a mën a doon lan moo war a doon ay jëfam ba tax yàlla mën ko assuréel wërsëgam nii borom tool bi nag jaaxle na ci lim gis parce que nga jékki-jékki rek nit ñëw fekk la fi nga taxaw fekk la sa barab ngay liggéey mu ne la noo tudd fuñ ko def ku ne nga jaaxle mu daal di koy laaj moom borom tool bi ne waa ji lu tax nga laaj ma sama tur waa ji daal di koy expliquer li nga xamee ni moo ko andi foofu fi mu jóge ba foofu mbir yi lépp nu mu demee mu daal di koy laaj yow jën jëf ju baax ngay def ba tax yàlla di la tàggatal niir yi ñu jóge barab ak barab di la tàggatal ndox mi ñu jóge barab ak barab pour mën la arroser sa tool borom tool bi nag xam ne nii fii lu ñuy làq amatu fi fii secret amatu fi parce que yàlla moo namm nit ñi xam ay mbiram moo tax mu dogalee ko nii mu amee nii boroom tool bii lim tontuwaa ji dafa ne ko comme ni nga ko gisee tool bi saa bu demee ba ñor dama koy xaaj ñetti xaaj benn ceer bi dama koy delloo yàlla maanaam dama koy jox jaamu yàlla yi nga xamee ni ñu ko gën a soxla ñi nga xamee ni yelloo nañ ko ci ay way néew doole ak ñoo xam ne seen loxo jotul seen gannaaw beneen ceer bi nag ci lay dund man ak sama njaboot beneen ceer bi moom lay jiwaat di xaar mu ñor ma jaaraat ak moom fa ma jaaroon waa ji daal dina xam ni borom tool bi li tax yàlla di ko tàggatalal niir yi di ko tàggatalal ndox mi du lu mooy dafa jël li nga xamee ni moom la ko yàlla jox mu delloowaat ci yàlla maanaam joxaat ci jaamu yàlla yi mu doy sëkk lu toll ni li nga xamee ni moom lay def ci boppam mu xam ni nag loolu dafa doon commerce boo xam ni perte mënu see am mukk histoire bi duñu jàngal rek ni commerce ak yàlla dafa amee bénéfice xankay dañ ciy jàng lool bu baax a baax waaye nag aussi dañ ci mën a gis ni nit ki boo jëlee say mbir wéeru ko ku dul yàlla boo yeboo boo tëddee nelaw te xam ne foo nekk yàlla dina la fekk donte da ngay gis am kàmb ba mu xoot nga dugg fa yàlla dina la fekk ak li nga xamee ni moom la la warlul li nga ni moom la bind sa jë